lii am solo mooy euh, dañu woote daje mu doon daje boo xam ni dañu am yéene waxtaanee li nga xamante ne euh, jot na xew ci réew mi at ñi ñu génn mu doon euh, mbas mi nga xamante ne lëmbe na réew mi bettoon na ñëpp waaye itam sonaloon na réew mi état jëloon ci ay kopparam. Euh, loo xamante ne da ko jagle lool li ñu naan le fonds force Covid 19. mu ne woon li nga xamante ne moom lañ dimbalee ñi nga xamante ne euh, daanaka seen loxo jotul gannaaw ceeb ba ngeen doon dégg suukar sa ngeen doon dégg euh, moom lañ jàppale entreprise yi ngir nit ñi bañ a perte seen liggéey waaye itam ngir entreprise yi bañ tëj. waaye itam li ñu doon jàppale structure de santé yi nga xamante ne ñoom ñoo yoroon li ñu naan la riposte face à la Covid-19. loolu yëpp mu nekkoon loo xamante ne ci gafag ak état gi la ne woon bu ñu newul woon ci contexte goo xamante ne Covid-19 euh, moo ko laloon daanaka waxtaan wi narul woon am ndax ci budget état la koppar yooyu naroon nekk waaye bu ñu demee ba état jagleel ay koppar. li nga xamante ne mooy la réponse à la Covid-19 mu doon euh, loo xam ni état da ko saytu xool ko càmbar ko ne loolu ah buñ ko xaymaa ci mille milliards la toll dañ ko ci def jàpp naa ni ah, koppar yooyu ak ni mu toll amoon na solo nit ñi daje ci toog waxtaan ci balaa daje bii di am ah, état tëral na li nga xamante ne mu ngi koy tuddee commité de gestion du fonds force Covid 19 mu doon loo xamante ne lu am solo la. mu doon loo xamante ne lu ñuy rafetlu la ndax bu ñu dee xool réew yi nga xamante ne sax daanaka mën nañ jàpp ni ñoo ñu gën a sori ci wàllum bon gouvernance ak démocratie ay États-Unis ak ay France fonds yu mel nii jotu foo woon a am comité yu mel nii jotu foo woon a am ñu jàpp ni nag euh, après bu fekkee ni am na loo xamante ne mën na ko jàngal yeneen réew yi da ko war a ndamoo rafetlu ko bu ñu xoolee nag doxalinu fonds boobu gëm naa ni mënuguma cee wax ndax mooy waxtaan bi ñu dëgmal euh, borom xam-xam yi nga xamante ne indi lañ leen fii ñi nga xaman ñi nga xamante ne seen xam-xam màcc na ci wàllum gestion financière waaye itam ñi dëkk ci gox ak gox-goxat yi nga xamante ne ñoom la état jagleloon ndimbal googu tey ñu ngi fi personne handicapée yaa ngi fi. Euh, ñi dëkk ci li ñu naan les quartiers défavorisés ñoo ngi fi ñi dëkk ci li ñu naan les zones rurales maanaam euh, villages yeeg yenn communes yi ñoo ngi fi ah journalistes itam ñu ngi fi waaye société ak institution yi ah, teewee nañ ah, bilee daje ma jàpp ni rek ñun ah, taxawaay ji ci war a am mooy déglu am itam oyofte ba nga xamante ne dina tax ba nañ jàng li nga xamante ne ñun xamuñu ko ndax ñeneen ñiy dund li nga xamante ne ñun dund nañ ko mën nañu jàngal loo xamante ne ñun xamuñu ko waaye état itam am na loo xamante ne mën na leen ko wax ñoom ci ni mu doxalee euh, yile ressources yi nga xamante ni moom la jagleloon euh, la lutte contre la Covid 19. mu doon nag waxtaan bu am solo yeneen waxtaan danañ ñëw euh, dañ ko jagleel mbënd mi dañ ko jegleel li nga naan li nga xamante ne ñu ngi ko naan protection sociale ak yeneen i anam yoo xamante ne soxal na Sénégalais yi te du ñuy faral di ci di ci waxtaan.